Rastafari. Old Bible just King Selassie I. It done no reason the other. Rough like crocodile and wild like lion. From above. My Jaja, unruly. Yes, mm-hmm. naa la. waaw fay naa la maam. the man with the melodic voice. nga di woy yaaga nga nekk ci musique bi. Mm-hmm. dama bëgg pour nga explainal ma bi ngeen dooree ak léegi changes yu bari yi am. I want you to explain it. The um, experience, what was it like going going through that? Wow, uh, um, ma ma'am, manjigala nuyu. Nuyu ne Gambia, uh, Humanity Stars la fii si fii la. Di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan fii la si jamono bi ndax uh, fii la tamit boo na si loo xam ne gën naa pousse Gambian music gën koo dooleel. Mm-hmm. Uh, képp koo xam ne artiste Gambia nga da nga dee bégee fii la. Mm-hmm. da nga koy yàkkamtee seetaan because foofu ngay mën a xamee yuy xew si music bi. waaw su ma delluwee baag si euh, sa question bi nag euh, comme ni ko Mbaye waxee la rek xam nga euh, nit moom soo nekkee si mbir nga bugg ko faale ko toppatoo ko gëm ne am na fu mu la mun a égal hmm. foo xam ne doo fa jëlee gàcce doo fa rus waaye ndam la moo nekk si yow nekk ndam si sa réew kon dafa am loo xam ne daf ko laaj après dara xëyut sotti xam nga aduna daanoo ko jóg la. waaw foog nga nangoo daanu di jóg xam nga. Mhm. di jooy nag di fomp say rongoñ ngir bañ say noon gis ko xam nga. parce que waaw waaw jénguwaat xam nga. Euh, along di wéy nag daf day mën a rof waaye léegoo léeg mu neex ba nga fàtte sax yu naxar yi waaw léegoo léeg mu naxari nag ba nga foog ne du neexaat waaye léegoo léeg mu neex ba nga foog ne du mës a naxariwaat waaye ba tey rek dañoo ne xam nga loolu mooy life bi su fekkoon ne affaire bi dafa xëy rek neex rek xam nga mhm. kon aduna du neex <laughs> foog léegoo-léeg ñuy jooy am yu naxar yooyu waaye along the way tamit euh, gis nañ ñi nga xam ne tamit ñoom lañ bokkal fiil bi muy music fiil bi muy yeneen artistes yoo xam ne definitely kenn bàyyatul sa loxo ku si nekka bugg a nga am foo nekka tamit foo toll si Gambian music ba tax na man foog naa ñëpp ñu ngay job léegi because soo demee open mic nga gis lu la jaaxal nga ñëw fii la anniversaire nga gis lu la jaaxal nga gis su yu xew alliance léegi mu woon la ne xam nga definitely struggle bi woot na ko because fu mu nekk nit yaa ngi see xala njëriñoo daal mun naa ñu see xala njëriñoo parce que eh, léegi fu mu nekk nii ñu bëri lu bëri luñ daan jooy jooyatuñ ko waaye ñu ba tey eh, ñu ngi ñaan yàlla daal mu gën a yokka xam nga gën a yombal affaire yi ñu mun see gën a mun a dugga si yeneen mun a génn a Gambia bi sax dem feneen ak feneen ak feneen represent Gambia comme naka la ko ñëpp di defee because foog naa ñëpp loolu la ñuy séentu si musique yi Gambia. incha allah incha And we're going to go with some more videos right now. This is Flex with For the Block, and then we also have DJ Limbo featuring ENC with Bounce to the Beat. And right after that, we have the very, very super talented Ahmed Wisdom with Ham Ham, Kuka Ham. This is one guy you have to listen to very, very, very closely in order to understand his music. So enjoy these videos, and we'll be right back. back, baby. Another special one, man. It's the birth of a dynasty, the album. My first album, so I gotta do it so, so, so exclusive, man. For all you out there who be loving the vibes and chilling and riding with us. I got this for you. It's the birth of a dynasty. Born for this mentally, heading to the top. I refuse to fall down, flex out. future. called God given. So cool and so nice, I enjoy fresh chicken. Hot to my folks, so they chilling up in Sweden. System overloaded, send you one way ticket home. Welcome to the birth of a new era. Another late night, so we keep on getting better. Bringing hip hop it down. Just a hood nigga lyrics running out of my mouth. Time's up, don't stop. We got it on lock from the beat to the block, from the hip to the hop. Went to school with the hard knocks when niggas pop blocks. Some be getting cheddar and some are dead broke. Others be laughing loud while others be telling jokes. Suddenly went up in smoke, then choke. This is for the block, so we back it to the fullest. gonna stop no